amaat mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ñi safoo Dakar Buzz TV ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar tey nag ñu ngi fii ci Patte d'Oie jéem a waxtaan ak sénégalais ak sénégalaises yi ñu xool jëf yu ñaaw yi am ci weeru koor bi rayante bi ah, di bëgg a rendi xale yi di sàkku xale yi jëf yu ñaaw yooyu ñoom naka lañ ko dundee ak ban jàngat lañ ci am ñu jéem a xool solution yi waxtaan ak sénégalais yi ñëwaat. Mouhamed en tant que parent naka nga gisee ñaawte fi am Sénégal ci jamono ji surtout weeru koor waaw ñaaw teewte yi moom li ma si gis mooy yar moo amatu léegi waaw nit ñi amatuñu repère comme yi amuñu temps éduquer seen doom comme il le faut xam problème bi waaw bàyyi xale yi ndaw ñi traîner à l'heure libre xam nga dugaloo leen ñuy jàng alxuraan xam nga doo leen suivre ndax ñu ngi lii bu dee bu dee si école la ñu nekk doo suivre ndax. ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi nu mu tuddati ñu ngi éduquer comme il le faut ñu ngi apprendre comme il le faut waaw parce que ñun bu ñu nekkee xale xam nga boo jàngee école boo wàccee xam nga di nga am sa benn parent bu lay téyel sa leçon xam nga di la suivre mais booy xam nga toute la journée ñu ngi si mbedd bi di traîner at portable yi encore waaw réseaux sociaux yi fu la neex nga dugg fu la neex nga zappé loolay problème bi waaw. fillette de 12 ans di am copain bay def naka su dul noonu ci ay tabax loolu c'est quoi lan mooy problème bi. waaw bon xam li ma lay wax rek mooy maanaam parent yi contrôlé wuñ seen doom waaw man damay naan sax dañuy yàqamti sax bàyyi seen doom ci mbedd bi pour ñoom ñu mun a féex war ko xale yow yaa ko war a mën a téye waroo ko bàyyi surtout Dakar fii nii sax instant ngay dëgg ni nit ñi yaa ngi réer ah ay xale yu ndaw di réer. d'une part si parents yi la bien vrai que kenn amul jot xam nga waaw mais góor gi bu demee liggéey jigéen ki tam bu dee day liggéey au moins mu am benn bon boo xam ne xam wala si kii yi sax nu ma tëddee nu ma tëddee internat yaa ngi fii ñu mën a téye sa doom mais nga bàyyi xale yu ndonk si mbedd bi nii nga xam leen di exposé waaw loolay waral xale yi di am fit xam nga sañ-sañ kenn du leen contrôler surtout Dakar fii nii kenn contrôle lu kenn waaw. bu njëkk ba xale boo ko gisee muy def naka sudul noonu sax gayeen xam nga mun nga koo corriger tey ji doomu kan ngay corriger. est-ce que nekkul dañoo àbbi jikko yoo xam ne moomoo wuñ ko bëgg dundee noo xam ne du suñu dundin. waaw oh, mais loolu waaw loolu tam mi ngi si feuilleton yi ñuy seetaan comme li ma la internet bi xam nga gars yi dem nañ ba amatuñu repère xam nga te fii ay nit ñu baax ñu ngi fi waaw ay kilifa diine yi ñu ngi fi waaw muy si côté alxuraan bi muy si côté français bi xam nga am nañ ay repère. Eh, booy ñoo dam ba ay repères yooyu noonu xam nga dam topp si leneen xam xale yi nangu ñoo jege mag yi ñu leen di conseillé fii nii ba si sol yi habillement yi waaw loolu la boo gisee viol yi agression yeeg yooyu noonu yooyu yëpp comportement habillement yi ñoo koy def ah xoolal yow ni nga nuyu ni nga yuwee nii ah kenn du am fii sax lu lu lu lu koy poussé kenn pour mun a ñëw xam nga mais yenn solin yi yow yaay agressé nit ñi yaay exposé sa bopp xam nga du ñëpp nag waaw am na ñoo xam ne ne xam nga dañoo faible am na góor yoo xam ne dañoo faible lu tuuti mën na leen excité am na ñoo xam ne nag même boo dafa yaramu neen gaan dara dinañ mën a résister xam nga loolu yëpp si si doomu aadama la nekk. voilà Sénégal ñëpp daan jël ci moom exemple naan réewu teraanga réewu diine réewu jàmm. Hmm. tey bu ñu demee ba Sénégal ñu koy lim ci réew yi bari crime. ñi ëpp crime ci àdduna bi hmm. te suñu nit ñu baax ñi fii lañ nekkoon comme ni nga ko waxee sànq. Hmm. tey lan moo waral rayante bi ñaaw ñaawteef bi bëgg a rendi doomu aadama yàkkante bi. Ah bon nit ñu ñoo nitewul rek loolee problème nit ñi ñoo nitewul gëmatuñu yàlla amatuñu xol yi yërmande waaw. gaa fii moom wax dëgg yàlla ba tey des na fii weeru koor bi ñu ngi wane ni yërmande xam nga waaw peut-être étranger yi ak yenn affaires yi ñuy gis nii xam nga boo xoole si monde bi yëpp la waaw. mais est tamit xale yi. Euh, acte barbare yi ñuy def di def comme yëfu loo xam ne ay yëfu mala la mais tey est que nekkul waajur yi comme ween dafa am solo ci doom bu dee nàmpaloo sa doom nga jël meew n'importe quoi nga koy jox muy nàmp parce que am na ñu naan est que du loolu mooy jàpp xale yi. non non non non <laughs> loolu moo gaan je ne pense pas xanaa nga laaj scientifique yi peut-être ñoom ñu démontrer la mais man yaakaar ma ne loolu la waaw xale boo ko téyee danga koy jox affection comprendre waaw. booy bëree ñuy sadik criminel nii gaan xam nga amuñu affection affection parent ñu si bëri mooy ñoo xam ne dañoo nekk si mbedd bi ñu abandonné leen gisuñu papa gisuñu yaay ba leen kii da ngay dem ba da ngay ñëg doo am xolu loolu loolay problème mais nga nekk ak say mu lay conseiller nekk ak say parent xam nga di nga am vie de de famille da ngay am xolu mande xam nga boo defee naka suñu dina naan nii ngay def nii ngay def mais xale yu bëre da ngay gis ponkalam magam jëmm di def yenn acte yi nga xam ne ne kii ne dañ ko dafa amul éducation de base éducation de base boo ko perte rek c'est fini perte nga lépp loolay problème nit ñi amatuñu kerse rusatuñu dara nit nag boo amatul kerse gaan xam nga jombaloo sa bopp dara loola neex ngay def voilà kerse mooy premier repère ah lii rus naa daf lii sama kanam nawlay lan lañ may wax après lan lañ may xoole mais boo nee sama fu faalewu ma kenn lu la neex ngay def lu la neex mel après ba si solin bi si waxin bi si lépp waaw loolu nag mooy éducation de base ñoo lay wax lii mooy kerse waaw alal jàmm bu ko jël waaw jàngala luy jom luy ngor am sa dignité garder sa dignité waaw ba tey am na ñoo xam ne am na ñu ngi garder seen mais bu ñuy dee xiif duñ jël alal jàmbur waaw mais ñoo xam ne nag boo ko amul nag moo lay tax a ngay def si yenn ak yi di sacc di fen di def na su dul noonu waaw ba si guerre beeg yooyu noonu yëpp société bi si boppam mooy loolu xam nga waaw wallaal mooy loolu. Ah, yaay booy maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant doom. tur bi naka la. man maire gii lañ may wax waaye man Aminata gii lañ may wooyee. mère Aminata ñu seet si la fekk la sa place tey nag ñu la doon laaj naka nga gisee Sénégal ñaawteef bi bari na lool ay xale ñu leen di ñu leen di rey ñu leen di violer ñaawteef bi bari lool en tant que mag nga nekk ci réew mi nan nga gisee loolu. xanaa jommi rek doom ndax lii moom mosula am Sénégal mosula am Sénégal te it man leen rek moom ma xaw a tuuse ci yëf yi. mooy xale yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi jub seen buntu àddina ñu war leen a jàppale ñu dem ndax ñun ñii dañ ñoo jàppale woon ba ñu yegg si fii tey kon nag ñoom ñii lu am important nga ma laaj muy loo xam ne xale yi daal man ñoo ma gën a amal importance ndax xale bu amee surveillé lu bëri du ko dal waaye dëgg it nag jamono moo naqari ndax boo xëyee. yàlla na ma yàlla baal baalati ma ci suma bopp laa koy seet boo fanaanoowul dépasse ah da nga xëy wëri dépasse njaboot gi su ma xëyee wëri sama dëkkandool wëri du ñu am ku ñu surveiller xanaa yàlla rek moo ñuy surveiller te moo ñuy surveiller ba léegi waaye ñu nit dañ cee war a wasu suñu àq waaye nag jamono ju naqari ñu moo ko waral man dee wax dëgg yàlla loolu daal moom moom defoon na sama mébét torop ñaareel bi xale yi dañoo war di jege mag ñi lu mag xam wax la lu xam mag xalaat wax la yaa ngi dégg ah waaye nag xale bu dee daw mag du xam dara école bi fii mu ne nii lépp mënuñ la ko eh, eh, jàngal dafa am njàng moo xam ne ci école bi la am njàng moo xam ne ci kër gi la muy kilifa yi yaa ngi dégg ah léegi nag yàlla moo doxalee noonu ah, ñu ñaan rek yàlla suñ borom daal daal jamonoom bii daal mu jàppale ñu gën ñoo jàppale ci xale yi daal ndax fi mu ne nii daal wax dëgg yàlla mbir mi tar na lool ak ñaaw tiif yi tar na lool tolin gi bon na lu waaye da ngay xool jënd sa sa si sa sa tissu cinquante mille ñëw jaw ñaw ko ñaw bu bon boo xam ne yow doo mën a dugg ci biir kilifa yi soo ko solee doo mun a assister yenn cérémonie yi loolu dara jaru ko fi xale yi ñoom itam war nañ man daal li ma gën a gën a gën a kii daal nañuy jege mag ñi mag ñi di leen xelal mag ñi di leen lu ñu xam wax leen lu ñu xalaat wax leen yaa ngi dégg lu ñu denc ci loo xam ne luy aar doom aaba ci ci ci gune wala loo xam ne luy sàmm gune la bu mag ma xamee wax la ko te mag gune yi fonk mag ñi boo fonkee mag dangay gudd fan suma bopp bi laa koy xool na la fonkoon mag bu baax a baax fonk suñu kilifa yi teg leen foo xam ne fa leen yàlla teg ndax kilifa yàlla fa mu ko teg moo ko fa teg du dëgg waaw nañ fonk suñu kilifa yi ku ci fonk sa kilifa danga nga gudd fan loo yootu da ko jot te bët bi euh, kilifa di xool doom na la leer ne mopp gàllaaj goo mën a wëri ci àddina uuti ko su sa kilifa gërëmee jaru ngay uuti gàllaaj su soo seddalee sa kilifa xolam fonk ko teg ko fa ko war a teg suturaal ko ah yàlla du la ba mukk la àddina du la bàyyi. tey euh, booy kersa bi nga xam ne moo waroon am ci jigéen ñi est kerse boobu amati na ak lan moo tax ñu ñu perte suñu valeur. ah waaw. soo àndee koo warta àndal wala koo xam ne amul kersa doo am kersa doo am kersa soo ànd ku yaru am teggin ñu yar ko jaarale ko ci siraatal mustaqima suma waay kooku doo doo doo bon mukk doo ñàkk kersa waaye nag booy ànd ak koo xam ne moom dañ koo teg fële moom mu wëlbatiku nga ñëw ànd ak moom ah dañ lay teg foofa rek. est yi tamit nekkul parents yi ñoo war xool parce que sa doom bu ñëwee ànd ak koo xam ne sa xel dalul ci moom. da ngay yar sa doom sa kër ba pare waaye bu génnee àndandoor bu bon maire bi du mën a la du mënu laa contrôler dara dara dara dara loolu yëpp mënu la koo contrôler yow ci sa bopp yow xale bi yaay seet fa say mag fa la say kilifa. jaaroon seeni tànk nga di fa jaar waaye bu la sa kilifa digalee léegi léegi léegi ci lu baax nga génne gis ku bon mu génne la ca ba nga set wecc tey lan lan mooy doon solution bi ndax ñaawteef bi mën a wàññeeku senegal solution bi lan. mag ñi nañuy jege mag ñi di waxtaan ak mag ñi di say kilifa di waxtaan ak sa kilifa sa kilifa mooy sa ndey ak sa baay la cay topp topp ca soo amul ndey ak baay am nga mag. bu dee góor ba bu dee jigéen ba kilifa du tuuti gune gi juddu muy góor sax dafa da kilifa la du dëgg man daal buñ fonkoon kilifa yi daal di jege kilifa yi di waxtaanee kilifa yi di diisoo kilifa yi ah man de wax dëgg yàlla yaakaar naa yëf yi daal yàlla dinañu mën a jàppale daal ngeen baal ma wax ji nag ngeen maa bett moo tax man nu ma xalaat wax dara. macha allah kàddu yi am na solo. ma ñaawaay bi nga xam ne wul bu te kubul man fii laay jaayee ndox me laay jaay ñeenti ak maa ngi koy jaay di ci suturloo teraanga bu ne fekk na ma fii barka alquran al karim wallahi la suma maa ngi dugg tele nii de samay doom tey dinañ ma gis tey samay mbokk dinañ ma gis tey xam nañ ne fii laay jaay ñeenti at maa ngi jaay ndox mi lu ne defal nañ ma ko fii barka alquran al karim say morom ak samay morom ak samay kalaasak ak sumay xamaaleeg samay am di jàmm ñi ma fonk ñi xam kilifa ñëpp fii amul luñ ma defalul fii ñii ñëpp sumay seede lañ wallahi la siblaam wallahi la siblaam waaw Mamadou tey en tant que jeune nga nekk Sénégal naka nga gisee ñaawteef fii nu mu bëree Sénégal ay xale yu am huit a ñu leen di rey ren ay xale ak bi bëri na lool ah loolu moom wax dëgg yàlla ñaaw rek comme ni ko Sénégalais yëpp di ñaawloo wala sax ma ne nit ñu baax yëpp di ñaawloo euh, xam na ne ni mu foore nga dab ko di nangu alal rek ni mu diitee jëlal naa la ngay ngay ngay ngay faat ba kanam waaw ñu ngi koy ñaaw du wax dëgg yàlla mais nag euh, xalaat bi ma ci am man suñ defoon Sénégal ku rey nit ñu rey la léegi mu dakk mais bakkan doomu aadama ni mu fooree xamoo fa ko ay ndeyam juree ak euh, baayam euh, am ci moom yaakaar nga far ko ci sa coobare bopp kese ñu tëj la ci kaso bi deux ans ñaari at nga génnaat romb nit ñi ci mbedd mi loolu dafa yomb loolu dafa yomb trop. daal ku rey nit buñ la reyoon loolu dina fi deñ. sax noonu la ko diglee waaw léegi nag ñun buñ buñ buñ buñ sukkandiku woon ci li ñu alxuraan digal rek waaw ku sàcc ñu dagg sa loxo ku rey nit ñu rey la jàmm day am. mais li ñu sonal ñun ñoo fi ñu son boroom jaarloo ñun ñoo ko fi bàyyee jël yoon bu ñu neex waaw bëgg a jël maanaam roy ci tubaab yi bokkuñu ak ñoom Sénégal bu ñu waxee dañu naan Euh, réewum jullit la réewum jullit nag jullit ñi di reyante ci seen biir dama yaakaar ne maanaam dañ dañ seetaan bi moo bari daal seetaan bi moo bari. ñu wax tamit pour delloo si xel yi ñu ngi wax. ah waaw moom moom moom ku ne xam na ne man fu man foofu foofu sax laay waxee parce que tey da ngay gis koo xamante si ni soo demoon tey ci kaso bi da fa gis ñoo xam ne tëj nañ leen fa lépp yoo xamante si nii ñii dañ leen a kéréel. ñi ñu euh, sosal leen ci ñàkk dañuy soo xam ne maanaam saa mu mango mën nañ ci tëj ci nit ci kaso bi 9 ans léegi nit dem ñu téye ko fa ay 200 mu génnaat loolu dafa garaaw ku rey nit moom nañ ko rey man loolu ci laa d'accord ma. Sénégal di di di réewu kilifa diine nekk fi ñoom Cheikh Ahmadou Bamba El Hadj Malick Seydina Limamou Laye ñëpp lim dëkk yu gën ñaawteef fii ngañ koy lim Sénégal ndax dafee bari lu tax loolu. ku ne jamono saa xëyee day gën a lëndëm waaw saa bu ñu xëyee parce que boo xoolee ci ginnaaw ñun suñuy imaam ñoom liñ jomboon ñun jombuñu ko ñun léegi boo xoolee lu ñu neex la ñuy def dara diisatul ci ñun internet tey soo ci duggoon tey ji yow ngay ngay ngay ngay connecté wu euh, di comme exemple Dakar Buzz ñu posté benn vidéo dama ci commentaire bu ma tee 100 ci dégg commentaire boo xam ne boo ko boo ko xool liiree jooy rek ngay bëgg ci ci wax ju ñaaw joo xamante si ni Sénégal xamuñu woon lool Sénégal li ñu ne xamoon ci dëkku baax yar ak teggin waaw ay ay ay critères yu am solo léegi nag yooyu dañ koo perte dañoo perte suñuy valeur. di xastante di waxante lu ñaaw. waaw man loolu damay naqari man du ma bëgg di lire sax ay commentaire te man mën na maa bind saaga mais du ko def parce que man la ko tedd ki lay su ma duggee ci commentaire yi mën na ma gis ñu wax ci moom loo xamante ne du ma neex wala ñuy wax ci kër gi ma bokk loo xam ne duma neex te billaahi wallaahi watallaahi man loolu dama koy tuur sa xéewal barke maam Thierno Birahim damay naqari loolu moo tax man yooyu auma temps woon léegi du ma lire ay commentaire tey naka nga gisee xale bu am 12 ans di am far. ah waaw réew mi de moom léegi moom daa sappaajoo moom léegi de moom moom doy na waar ndax da ngay gis koo xam ne desi ni day am ak ba pare maanaam du leen toppatoo du leen yar waaw. seetaan leen xale yi lay xoolal fii rek kay ñu ngi ci weeru koor da gis xale boo xam ne amagul sax 10 ans yu mat li muy sol boo xoolee li jigéen war a fanaanoo wala li jigéen war a jomba fanaanoo sax dañ koy sol jàll ko ci marché mooy li ñuy wax perte suñuy valeur loolu da cee Sénégal daal xam naa ne fii mu nekk nii ragal naa tubaab yi sax ñu leen raw ci ñaawtee fi ñuy def ndax ñun kersa lañ kersa bi ñu daan am dañ koo perte kersa léegi moomatul waaw parce que ki ko def tey da nga xam ne romb na ndeyam romb na baayam romb grand frère am bu ñëwee ci marché bi yow mi mu romb da nga koy naqarlu sa xol léegi mais mënoo ci dara parce que nit loo ko bëgg-bëgg ndeyam ak baayam ñoo lépp gën a bëgg ñoom ñu ko jur léegi nag buñ ko yarul kenn mënu tawul dara waaw yar moom day loo xamante si ni ci nit moo gën sax jàng nit ku jàng maanaam yar ab yar ci nit moo gën am jàng da dañuy wax ne boo boo jàngee te yaruwoo yaay mbaam mu safay téere yéen a yem. tey ci mbaam boobu am na nañu naan xale jigéen ñi ñoo nàmpalatul seen doom yi ci seen soow parce que nit boo ko nàmpalee ci sa ween dina dina jël ci yow ay jikko mais léegi xale jigéen ñi bi waroo la ñuy jël def ci meew moo xam ne kenn xamul lu mu doon. meew yoppale am na meew bu tudd yoppale man daan ma ko yónni sax. mais yóbbale am nag koo xamante ne si nii xam naa ko femme boobu noonu da doon jàngale ji dong mais amutoon temps sax bu muy nàmpalee doomam man la daan woon naan ma kaay jëndali ma yóbbale ca laa jàppee soo boobu ba léegi nekkate doom bi la koy jox mu koy naan. wala la yow nga nit nga jur ko war a nàmpal sa ween nga koy nàmpalee meewu nag su màggee xelum nag lay yor moo tax nit sañ taxaw ci mbedd mi taxaw sumee ko saaga nday def lu ko neex kar nit nangu alalam. nit war dal dara nga gis ko bi nga koy war dara nga jël ko def sa poos dem lekk ko te doo ci dara. loolu yëpp mooy ci xeetu xel yore mais ñu ko ànd ak sa sago am am loo bëgg am looy jomb ñu yar la fañ la war a yaree idiki la am na loo xam ne danga koy jomb gis nga nit bu jombee rek baax waaw. lan mooy solution bi lan la ñu war a def ba loolu dañ fi Sénégal parce que xamee wuñ ñu loolu. xamee wuñ ñu loolu mais yar moom ku ne xam na ne kay waajur moom moo ko mën def ci doom moom parce que sa doom bu juddoo. nga yor ko ba mu xàmmee ba ràññee nga du danga ko li war li li nga xam ne moom la lay sunu borom digal ci xale bi mooy nga yóbbu ko mu dem jàngi. bu dee ñun jullit ñi nag foofu dinaa ci wax euh, loo xam ne si man dama koy naqarlu ñun ñi léegi boo xoolee sunuy doom jàngalatuñ leen alxuraan léegi koo ci gis léegi bu doomam demee ba tàmbalee dara jàng ay sept ans yooyu rek yóbbu nañ ko ci école bi parce que yéen jàngaloo français. bàyyi alxuraan bi xam dañ ko négligé te ñooñu nee nañ ay jullit lañ te ab jullit man dama jàpp ne li mu a njëkk xam mooy téereb yàlla bi mooy alxuraanul karim yi bu ko jàngalee alxuraan mu jàng diineem xam li yàlla euh, santaane xam li yàlla euh, euh, tere ah xam faratay julleem xam ay surnaam xam ne léppam daal li ko diineem sas bu pare nag bu leen neex nag mën nañu ko jël yóbbu mu jàng leen mu jàng leen leen neex. ñoo jël ko yóbbu ko ci école yi mu dem jàng français ngir lan après bu génnee mu jekko àdduna jàng nasaraan taxut a jekko àdduna jàng alxuraan taxut a teewut a ñàkk a jekko àdduna waaw li am solo mooy da ngay da ngay da ngay bañ a complexe nga xam yow sa cosaan xam sa diine fonk ko parce que ñeneen ñi ngay toppandoo ñoom li ñu nekk dañ caa nekk fekk si wuñ la ci ñoom ci li nga nekk te nga nekk nag mooy dëgg man nag nekk du ma xam ne mooy dëgg ma koy ma koy ko def. macha allah kàddu yi am na solo jërëjëf. ah man de gis nga moom damay waxi dof rek man moom xam ne damaa saaraan waaw waa Dakar Buzz yéen kontaan nañ ci yéen yàlla na Buzz bi di yokku rek barke maam Thierno Birahim kontaan nañ ci yéen. ah leb tur bi. waaw lebal naa la ko soxna si naka Sénégal fan yi ñu weesu ci jamono ji ñu nekk sax la ñuy wax ñaawtef gi bari na ay xale ndaw ñu leen di violer agression bi rayante bi ban jàngat nga ci am. ah man de moom ku nekk rek yaa ngi ragal moom eh, adduna bi daal dafa doy waar ndax yar bu njëkk ba ak bu léegi ute na waaw eh, man de si yaay yi lay gën a dugg yaay yi nañu gën a xool si seen doom yi daal ñu gën a parce que léegi sécurité amatul ku nekk daal bu dee mën nga wóolu sa bopp jeex na mais <laughs> sa proche moom il faut nga méfier wu daal loolu laa gis ci sama bàyyi xale bu am huit ans di ba ñu ko tey xale bu am douze ans muy am naka ngay jàngatee loolu ah loolu moo tax ma ne la jamono ji moo soppeeku daal xam nga jamono yu njëkk ñun suñu génération dégg la xale la mais man quatre vingt laa juddoo xam nga ku ma si sama jëmm ji boo ne am na 37 ans doo ko gëm mais ñun suñu jamono boo amoon farsa da ngay lakkatu doo ñeme <laughs> jamono yooyu mais léegi xam nga xale yi léegi xaw ma ndax internet bi moo leen yàq wala doo comprendre wala. ay jigéen di yàqante ci réseaux sociaux bi di génne seen ay awra yow ngay jigéen nooy dundee loolu. xanaa gàcce ndax man am na yenn sa jomm naa ko def su ma ko gisee. Euh, ruus bi day mel ni man la daal xaw ma nag si ñeneen ñi yooyu moom baaxul daal wax dëgg fa yàlla waaw. tey ngay ngay jigéen est-ce que waajur yi place bi ñu waroon a taxawee ñu koy taxawee ci jigéen ñi parce que jigéen dañ naan na jege yaayam mu koy jéem a yedd. ah loolu moo tax ma ne la yar bu njëkk ba ak bu léegi ute na parce que man moom dama teel a ñakk ay parents euh, ñun suñu man sama mag yi ñoo ma yar. waaye yar nañ ma ba fuñ ma war a yare ba yàlla def moom maa ngi sëy waaw. ban conseil ngay jox way jur yi pour nga xam ne loolu buñ ko defee xëy na dina am solution dina du fi dañ mais dina fi gëj. xam nga yaay mën na yar doomam si mbedd bi eh, eh, si këram mbedd bi jaxaat ko yàq ko waaw ak àndandoo yu bon yi waaw loolu tamit loolu la waaw. ban conseil nga leen di jox ñu def ko. Ah, conseil bu nga leen di jox ñi gën a ñaaxaat seen doom yi rek waaw ndaxte surtout ma doom bu jigéen ak yaay dañoo war a am complicité ndaxte xam nga ñun sénégalais yi dañuy am complexe yenn yi nga kay wax sa doom bu jigéen te pourtant doom bu jigéen mooy xarit yaayam mooy mën naa ne bu dee taaw la sa génération la parce que boo ko defee noonu euh, dina xam fu muy teg tànkam ak dina xam tamit lu muy war a def waaw man moom wax dëgg fa yàlla sama mag yi ñoo ma yar waaye dañ ma defoon comme xarit daal amul woon complexe même xam nga jamono yi njëkk ya boo gisoon indisposé nii da ngay tiit di jooy mais jamono yi tey tey jii xale yi 11 ans ñoo koy gis te yaay ji sax ko yëg xam nga loolu kiwul moo tax yaay ji dañoo war a di communiquer ak seen doom. communication bi tamit baax na ci. Pape Thiaw naka nga gisee Sénégal fan yi ñaawteef yi bari na lool ay xale ñu leen di rey di leen xoj ay xale yu am ay copains à l'âge de 12 ans ban jàngat nga ci am. loolu moom lu doy waar la doy na waar de wax dëgg fa yàlla waaw dëkk bi moom doxul instant yi day waaw ndax instant yi ñu ngi nii bëgg a liggéey mënuñoo liggéey waaw te loolu metti na ku doon bërëm kër moom war a liggéey yóbbu sa kër moom te amoo loo fa yóbbu bëgg nga liggéey mais gisoo loo liggéey pour yóbbu fa. xam nga loolu itam métti na waaw. loolu de la ñaawteef boobu lan moo ko waral fii ci biir Sénégal te muy dëkku lislaam ah ñaawteef yooyu moom xanaa bon rek soxor. waaw ndax bu fekkoon li ñuy wax moom gëm nañ ko bu boobaa koon bu boobaa duñ dund ay affaire yu ñaawtees yooyu waaye man de loolu laa gis. ay xale ñu leen di rey xale bu am 12 ans di am far loolu yow en tant que jour naka nga jàngatee loolu. loolu moom doy na waar trop doy na waar de affaire rey bi moom de léegi moom dafay bëgg a bëri de. waaw to loolu moom du yoon fii dëkku diine la waaw kontaan ak am na loo xam ne waru fee am daal waaw fii daal jàmm ak salaam daal moo fi war a am. est nekkul yar bi moo des wala xale yi waxtaanatuñu ak ñoom. waa yar bi moom des na gone yi léegi moom boo xoolee ñu bari dañoo yar seen bopp waaw loolu la noonu la demee nag. loolu ci waajur yi la wala wala ci société bi ñu nekk. mais ci waajur yi am na waajur yoo xam dañuy yar nga jaar yoon am ñoo xam dañuy yar doo jaar yoon est tey ban solution la ñu war a jël ba ñaawteef yooyu jige fii nga xamante ne mooy sunu réew di Sénégal. waaw solution bi daal maanaam ñu gën a góorgóorlu gën a fos du njom daal maanaam waaw boo ko defee daal nangu maanaam am liggéey am loo xam ne maanaam dañ ci liggéey suturaaloo maanaam kon bu boobaa lool moom dina baax lool waaw. lan ngay wax waajur yi ñu ñu gën koo veillé ci ci njaboot gi. waaw waajur yi moom li ma leen di gën a conseil maanaam ñu gën a jaraat tàggataat seen doom yi gën a waxtaan ak ñoom gën leen a ñaax bu baax ñu gën a góor góorlu waaw man de loolu lay wax. naka nga gisee insécurité bi fii Sénégal ñuy violer xale yi di leen rey. insécurité bi léegi fii Sénégal léegi dafa dépassé nit ñi nit ñi niñ koy dundoo moo métti sa amoo droit génn sa kër sa kër sax dañ la fi fekk laa wax defal na ko su noonu. insécurité bi war nañ ci waxaat bu baax jóg si ndax nit ñi sonn nañ mënoo doon Sénégal ñu ne Sénégal réew teraanga la te mënoo fi dund benn teraanga bu baax mënoo fi dund vie bu normal sax tëna la mënoo am envie génn mënoo am envie def dara ndax insécurité bi da ngay génn ñu jàpp la mbala nga génn yónni la sax si boutique bi ñu jàpp la mbala ñu agressé la yóbbu la loolu yëpp daf insécurité bi dafa dafa dafa déborder instant bi Sénégal war nañu siy dimbale nag bu baax ndaxte ñun seen suñu Sénégal lañ am fi lañ dëkk jéemuñ dem fenn fi lañ nekk di daan suñ doole mais léegi ñemew sax génn surtout nag jigéen ñi dama leen yërëm si insécurité bi lu ñuy dund ñoom lu ne dañ leen koy def dañ leen di violer dañ leen di sàcc dañ leen di tëddee lu ne dañ leen koy def loolu yëpp ñu koy dund fi Sénégal dafa métti damaa bëggoon nag ñu wutal ñu si pexe mbala ñu xool neneen ñoo xamante ni mën nañ koy dundee wàccewul ñu ay police si mbedd bi n'importe quelle mën a dox mais da ngay am sa soxla sax bala nga guddee wàcc doo ñemee ñibbi wala da ngay mujj obligé di di di fay taxi oto yi di da fayeeku du seer ndax doo wóolu insécurité bi moo tax boo jëlul taxi doo ñemee dem yenn saay sax nga bokk si oto ñu lay def na ko sudul noonu surtout car bokkaate yi loolu yëpp si insécurité bi la mu bëgg bu baax nag ñu dimbale ñu si ndax ñun dañoo doon ndaw yoo xam dañuy wuut te wuut bi demeewul noonu des fois nga guddee wàcc mais insécurité bi tax na léegi ñemewul guddee wàcc vingt heures nga dund dund loolu man mas naa kay dund ndax damay damay des fois da ngay génn sax di dox ay vingt heures bala vingt et ñu ñu ñu agressé sama ñu ñaari borom moto romb ma ñaari grand portewant këf sama téléphone ma tegaat yeneen yoo xamante ni sama bër ñu ñuy këf téléphone jàmbur si lool bala ñu si sàcc nit sax di ko di ko si def na naka sudul noonu mais gis nga ni benn xale Thiès ñu dagg loxoom naroon ko rendi ak xale bi nga xamante ne ay taal nit ay rey loolu lan la dañu perte suñu ay valeur wala. loolu nag moom a gën a métti man loolu may gis ñuy ñuy def xale yi surtout xale boo xamante ni xamul dara di am huit ans wala di am sept ans nga koy def n'importe quoi loolu xaw ma dañ leen koy sant xaw ma n'importe quoi mais loolu war nañ koy éviter dindi bu baax ndax xale xamul dara moomil la nga jàpp ko di ko def yenn yi tamit amul sens. nga dem wuti keneen te boo koy def yaa ngi am doom mbala sa sœur mu ngi am doom bala sa grand mu ngi am doom nga xool noonu nga nga jàpp benn xale bu ndaw koo xam ne xamul dara innocent la xamagul dara si réew mi xamagul dara Sénégal nga jàpp ko di ko def yenn yi loolu dafa ñaaw dafa métti. mais que tamit yar bi desul ndax bu dee xale bu ndaw amoo 12 ans wala 11 ans nga am far tamit. yar bi des na de bi des na damaa bëgg nag wax ak parents yi surtout nag ñu ñu ñu éducation bi dafa des. ndax waroo jël ne sama doom dama koo bëgg ba yow doo éduquer xale bi xooloo xale bi lu muy def xooloo lu mu du def loolu baaxul loolu ku koy def bëggoo sa doom te bëggoo mu am nekk si éducation bu baax soo bëggee sa doom nekk si éducation bu baax da koy yar di xam si lu muy dugg di xam si lu muy génn mais xale day am 11 ans wala 12 ans ñu na la téléphone iPhone nga nga bokk nekk ak sa waa bokk sa groupe WhatsApp di def n'importe quoi di envoyer lu ne def sa téléphone code def sa téléphone silence sa appel kenn du ko dégg. booy wax sa yu bon bala nga dem sa kër xarit parents yi tamit loolu des na des na war na ñuy xoolaat bu baax njaboot gi nu ñu leen nu ñu leen di yaree ndax yarin bi des na trop ndax xale bu amee fitu def yéen nii rek doo ko ko doo koy dund mbala moo xamante ni amul kenn kenn kenn surveillé wul ko bu amee fitu def yéen nii xamal ne kenn surveillé wul ko mbala am na yu muy gis am na tamit yoo xamante ni si kër yi lañ leen di gis moo tax boo nekkee say doom war ngaa xool bu baax ni ngay doxalee yow mi parent bi pour que xale bi mën na roy si yow royin bu baax mais parents yi léegi dañuy def n'importe quoi si kër yi sa doom di ko gis sa doom boo xam ne mu ngi am 12 ans wala mu ngi am 11 ans di gis ngay def n'importe quoi moom tamit xelam day nekk si loolu ndax xale xamul dara lu mu gis si ay parents am da koy da koy da koy jéem a def moo tax bu baax ñu war si bàyyi xel di eh, xool xale yi nu leen di yaree ak école yi tamit ñu xool war a ndax nit bu amee fit wu jël doomam dugal ko école bëgg boobu mu yor fa comportement bu baax bala mu yor fa éducation bu baax moo tax. mais du du ay xale da leen di teg rek si classe di leen jàngal pare ci war ngaa xool lu ñuy def ndax nit boo xoolee ci kanamam war ngaa xool lu mu capable ak lu mu capable su nekkee gis nga eh, nit élève bi di def naka su dul noonu nga woo papam ba mu ñëw nga woo ay parents nga woo expliquer leen sa doom day def li école mal day def laa mais dañuy bàyyi xale yi rek ne école amul dóor amul dóore amul def dara. est-ce que nekkul ñi nga xam ne ñoo war a wax ñoo xam ne bu ñu waxee ñëpp dinañ leen déglu ñooñu lan moo waroon doon seen taxawaay tey ci Sénégal. ñooñu nag ñoo war a génn wax ndaxte léegi cas yi dafa ëpp ci Sénégal te cas yi bu bëri il foog autorités yi génn wax nit ñi mën leen di déglu ma la nit ñi am tuuti lu ñuy tiit mais Sénégal nit amatul gars yi nit amatul lu ñu ragal léegi moo ma jaaxal loolu jaaxal na ma trop moo tax nag war nañu indi sarta yoo xamante nii képp lu waay def si lu bon ñu wan la ne la lii ak sart lii ak lii daan yi ñool si fekk bu baax ñu am am lu ñuy ragal tuuti sax mais Sénégal amul dara lu ñuy ragal lu ñu bëgg def dañ koy def te loolu baaxul war nañ ci xoolaat bu baax wutal ñu sécurité bu doy bala ñu tegal ñu sart yoo xam ne ku def lii nit lii lañ koy def ndax ñu am tuuti sax lu ñuy tiit pour am lu wàññeeku ci affaire yi mais affaire yi ëpp na loxo trop waaw.